baax a baax ci ànd beeg euh, Leewtoo TV tey nag ñu dalal benn promoteur ba nga xamante ne bi jeune promoteur la bokk ci promoteur yi nga xamante ne bi ñu ngi ci suuf di jóg ndànk-ndànk ñu koy waxee rek Leewtoo TV euh, nekkalu fii promoteur yu mag yi kese mais tamit dañuy dañuy yaatal promouvoir jeune promoteur yi nga xamante ne bii ëllëg ñoom ñooy téye làmb ji ëllëg ñoom ñooy remplacer ku ci mel ni Gaston Mbengue Luc Nicolaï ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo fi nekk loolee tax tey ñu dalal ki nga xamante ne bii mooy Moussa géey ñu koy wax MG borom MG production di euh, di promoteur ba nga xamante ne bii day yëngu ci wàllu làmb duñ def rek lu dul bàyyi ko mu nuyoo euh, bala ñoo ñëw moom ci li nga xamante ne bii mooy biir waxtaan bi. salaamaaleykum wa maa ngi leen di ziar yi ñëpp ku si nekk di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di ñaan jàmm si réew mu jàll na jàmm yàgg si ak dëkk bi di rafetlu invitation bi di nuyu toute l'équipe de Leewtoo TV si invitation bi ñu ma invité te dalal ma avec grand cœur mhm. di rafetlu si li ngeen xool promoteur bu mag ak promoteur bu ndaw mhm. ngir woote mhm. parce que làmb daanaka promoteur yëpp ñoo bokk cachet bu ñuy dagg licence mais xoolal leen kii combat bu mag lay tëgg wala combat bu ndaw. ni nga koy waxee promoteur bu ndaw amul. mbër bu ndaw amul. ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy dagg. di rafetlu ni ngeen di maasee ñëpp leen invité. ci jotaay yi mel nii pour ñu mën a promouvoir seen promotion làmb. Uh-huh. promouvoir làmb bi nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg. Uh-huh. di rafetlu bu baax invitation bi. Uh-huh. di leen sant. nga dëkk fi ñuy wax euh, Bargny géej Bargny ku ko xam-xam ne tamit euh, dëkku làmb la champion yàgg na faa jóge champion yàgg na faa waree ñëw bëri si fi nga xamante ne bii moom mooy euh, Ndakaaru ñu bëgg ñu bëggoon rek nga ñëwaatul boo ñu doon présenté kan mooy kan mooy MG production Moussa Gueye moom mooy kan. waaw Moussa Gueye dafa nekk benn ndaw boo xamante ni bi mu nekkee xale ba léegi. day suivre làmb di ko dund. Mm-hmm. te nit looy wàll yaat rek dafa fekk sa dëkk tëgg ko. ñun ñoo moom làmb te làmbaay suñu cosaan waruñu ko préférer beneen sport te ñun ñoo mën a promouvoir suñu sport national muy làmb mu màggee si ëtt boo xamante ni façon champion bu nekk tàmbalee na fa ba yegg fi mu yegg tey façon champion bu nekk génnee na si tàgg euh, peggu barñi boobu noonu di ko di fàttali ay champion yoo xamante ni bi ñu nekk xale lañ leen daan seetaan foofu ci barñi cofeel boobu nekk si ñun ñu màgg màgg ndox moom ba ràññee ba yàlla may ñu kàttan ak mën-mën as tuut ñu doon dugg si si làmb ji. Euh, bi nga dugg see ci làmb ji bëre ba lit lit lit sans frappe nga doore wala li nga xamante ne bii moom mooy euh, lit avec frappe. waaw ma lit sans frappe laa démarré sama première édition maa ngi ko tëgg en deux mille neuf deux mille dix neuf muy drapeau Momo Dieng ma defoon ko sa stade municipal bu Bargny. Mhm. terewul maa ngi continué liggéey si lutte simple bi. ba ni yàlla defee Covid bi dugg. léegi nag moo tam war a tàmbali nag son premier événement ci lutte avec frappe. Mhm. war ko def le mars incha allah ci kàttanu suñu borom. dinañ ci ñëw. Mhm. Mhm. waaw nga war ko def le mars dinañ ci ñëw mais tamit bëgg nañoo xam foofu ci Bargny euh, yan promoteurs yi jafe-jafe ngeen fay jànkonteel pour organiser am ngeen fay ay jafe-jafe wala foofu lépp ngi naaj. waaw foofu am nañ fa ay jafe-jafe diggante Bargny ak Tëngéej am nañ fa ay jafe-jafe parce que actuellement stade Bargny bi dafa nekk en construction. foofu dañ ko stand by. actuellement cachet bi ñuy joxe stade bi c'est excessivement cher. Mmh, dafa cher parce que ñu ngi koy joxe à 500000 francs avec un caution de garantie de 250000. Ah te loolu luy provenir da ngay fay 500000 ba pare au niveau de la mairie pour lu fa yàqu ñu mën ko si couvrir. Mmh. arène nationale bi nga xamante ni moom la état bi tabax. Mmh. pour mbëri sax joxe ñu lool à ce prix. donc pourquoi un stade boo xam dafa nekk dans un département doomu département bi di tëgg làmb di dix écuries yu fa nekk. champion bu nekk gi nekk foofu noonu. mais ay jàmbur ñoo leen obligé di jël di leen délocaliser pour génne leen. jeune produit ñu ngi foofu te kenn mënu leen génne. ñu nag ñu jógoon pour taxaw génne champion yooyu noonu. mais ak tolof tolof yi di am nii à ces prix ça sera un peu difficile de continuer à travailler dans ce département. loolu aussi ñu di ko ñaawlu ki fépp fu ñu ko mën a waxee nag dañ ko fa waxee. ba ñu wàññi cachet bi promoteur bi mën a ñëw jël si xale yi. tëggal leen fi ñu dëkk ba ñu ràññee leen ñu mën a nekk au sommet ñu mën leen transférer ñu ñëw Dakar. loolu bokk na ci li lu lu mën a gàllankoor làmbu Bargny parce que su fekkee par exemple tey yow da nga bëgg a tëgg ci stade bu ñu laaj la 500000 nga war ko fay war a joxe benn caution ba nga xamante ne bii mu ngi toll toll ci 250000 en total lépp di 750000 bu fekkee sa doole tolloowu ko da nga da ngay préférer bàyyi bañ a tëgg làmb mais su fekkente ne bii wàññi wàññi nañ ko nag xale yi nekk Bargny nga xamante ne bii dañoo bëgg làmb tëgg ñuy bëre ñuy mën di bëre biir bari ñi ba ñuy yegg seen Dakar. effectivement boo xoolee boo xoolee des années ci ginnaaw suñu papa Palla Mbengue ñu ngi koy nuyu de passage champion yu fi mujjee génn yëpp si département ba léegi benn champion génnul bi. ñu ngi biir Bargny. ñu ngi biir Bargny ñu ngi biir Tëngéej Rose ñu ngi biir ñàgg ñu ngi biir Yène. c' est que dafa nekk département boo xam ne y' a que de purs produits yu fa nekk mais ñun suñu nekkee doomu dëkk bi jóg pour génne te maire bi jàppale ñu ça c'est un peu compliqué. te beneen promoteur du jóge fële ñëw ne moo leen di génne. au contraire dañuy ñëw exploiter doomu dëkk bi après bàyyi leen fa. donc nañu xoolaat encore le prix. pour le développement. de ce département. loolu laa amoon lu mu ci ñaaxaat daal. ci parti parti boobu kon moom laa lancé parce que ñoom ñoo fixé seen prix. Mm. avec le conseil municipal à 500000 avec un caution de garantie de 250000. waaw. mën nan ko wàññi nan ko wàññi bu baax a baax ndax yaakaar naa làmb facteur de développement la facteur la ba nga xamante ne bii day day day génnee ay ay ay ay xale ya nga xamante ne bii lu ñu amee ci làmb dañ ci dimbali seeni wajur lu ñu amee ci làmb dañ ciy gis seen bopp kon ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy autorité yi nekk foofu ca bari ñi ŋànk wàllu stade bi nañu gën a oyofal seen loxo ngir promoteurs yi mën di jot ci stade bi di mën di dëggal xale yi wax nga ko sànq yaa ngi jëm ci journée bu am solo euh, dimanche le 20 mars foofu ca Bargny nga tëgg ay xale ya nga xamante ne bii macha allah nag euh, am nan gannaaw mm-hmm. am nan gannaaw ndax grand combat bi maa ngi gis nga tëgg ki nga xamante ne bii moom mooy xayta bu jëf jëf soog a soog a nekk ak ki nga xamante ne bii mooy sapeur bu écrit Bargny sapeur mm-hmm. def naa mooy mooy rakku ko mooy sapeur mooy rakku coince mm-hmm. di xale boo xamante ni doon def ay jéego ci mbapat yàlla def mu jotoon bëree quatre combat bi mooy cinquième combat Euh, mu war a jàkkaarloo benn ndaw bu ñuy wax xayta xayta muy nekk jëf soog a nekk moom aussi di champion boo xamante ni ku ñu ràññee la si lutte simple aussi mais jot na def ay jéego si lutte avec frappe ñu boole leen ñoom ñaar pour xool nan la ñuy def pour promouvoir la lutte dans le département kii mu ngi dëkk Kër Mbaye Fall kii mu ngi dëkk Bargny ñu boole leen pour xool nan la ñuy soxee jeunes yi fa nekk pour mën leen jàllale ñëw à Dakar noonu la biir mi demee. mu mel ni am na yeneen combat préliminaire gis naa booy Niang ak ki nga xamante ne bii mooy Siteu bu As. waaw Boy Niang moom mooy mbaru ñàgg bu jógee ñàgg ñëpp jóg. moo tax dañuy wax euh, Siteu bu As bu Tëngéej. mu ngi dëkk faas moom tamit di nekk xale bu am mbooloo. muy ñaari mbëru dëkk. ñoo xamante ni ku si nekk euh, sa ginnaaw yaatu na. kenn ki am na sept combats benn défaite. muy Boy Niang 3. Siteu bu As am six combats sans défaite. ah kooku déggagul mu ñor kooku mu ñor. Uh-huh. ñoom ñaar aussi ku si nekk war a wane say preuve. Uh-huh. pour noo nekk au sommet. Uh-huh. loolu moo war a ñu taxawal ñaari combat boobu noonu. mu mel ne am na yeneen combat préliminaire yu ci topp. waaw parce que journée bi a boo si xoolee dix combat yëpp ay combat jànq la. boo xoolee combat guy gi dafa am deux sorties deux victoires. Eumeu Sène junior boobu noonu Eumeu seen numéro deux mu ngi am cinq sorties trois victoires deux défaites. ñoom ñaar aussi ñu bëgg relancer wu. parce que gëj nañ tooyal seen gemb. ñu war a wane aussi seen bopp si saan bi uh-huh. loolu moo waral ñu boole leen ñoom ñaar uh-huh. mu nekk ñaari ndaw yoo xam ne neexoo nañ te ku si nekk bëgg nga euh, wanewaat sa bopp daal parce que am nga retard wu ndaw ci làmb uh-huh. waaw uh-huh. Uh, xam naa incha allah dinañ jéem a def le tout ànd ak suñu équipe le ñëw foofu ca Bargny gën a xool gën a découvrir euh, làmb Bargny naka lay doxee suñu mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñoo leen ko dig incha allah daa ñu dem Bargny toppal leen làmb ja lépp lu fa jógee ñu ànd ceeg MG production incha allah àndil mm-hmm. leen ko fii ci euh, Leewtoo TV mu mel ni tamit làmb ku ko wax organisation waaw ay doomu aadama ngay dajale. ci wàllu kaaraange gi wàllu sécurité. bàyyi nga ci xel bu baax fan nga ci toll. waaw pour côté boobu moom yàlla dimbal nañu ñun dañu nekk euh, ay ndaw yoo xam ne yàgg nañu dox ci làmb. te duñ ne xam nañ lépp mais xam nañ ay recoins yu bëri ci wàllu làmb. di jëm si wàllu sécurité loolu c'est déjà calé. loolu waxtaan nañ ca commandant Thioune ba pare mu ngi ciy def jéegoom. parce que bu dul dara aussi dama nekk si benn association bu ñuy association des promoteurs authentiques nekk si président commission finance. di nuy nuyuwaale président Dieye seen de passage. Dieye Sène waaw di nuyuwaale Abdoulahat Ndiaye l'infatigable. di nuyu sama gars ñoom Jibi Ndiaye ñoom Baba Diaw. Ameth Diop ñoom ñëpp de passage. nekk si association boo xamante ni ñëpp làmb li ñuy dund. nekk seen biir di di ma réorienté pour ma gën a mën a taxawal sama bopp ci sama département parce que association mu nekk na association boo xam ne kenn xàmmewul promoteur bu ndaw. kenn xamul promoteur bu mag ñun ñëpp dañu booloo bu kenn ayee ñëpp taxaw ci ginnaawam soutenir ko def ko si yëfu bopp pour la réussite de cette journée te loolu noonu mooy chance bi ma am ñoom ñoo nekk sama ginnaaw association des promoteurs authentiques ñoom ñoo may gën a doole ci bés bi pour la réussite de cette ci wàllu ci wàllu sécurité sécurité organisation bi waaw kon wàllu sécurité bàyyi na ci xel bu baax loolu bàyyi nañ ci xel bu baax bis ku ko wax wax li nga xamante ne bii moom mooy euh, parrain lu mel ni làmb mhm. mënoo dem sans parrain mënoo dem sans sponsor. Mhm. Euh, côté foofu nga xamante ne bii moom mooy euh, côté Bargny est-ce que doo leen am ay gàllankoor di am wàllu parrain lu mel ni wàllu sponsoring ak yooyu. waaw côté sponsoring bi moom c'est très compliqué sponsor moom boo xoolee daanaka génne nañ ci làmb bi carrément relation moo lay tax am léegi ku la accompagne parce que gars yi waa link bi. recommandation reconnaissance looloo am ci dëkk bi te loolu mën na ñàkk parce que nit bu dëkkee ci dëkk nekk dans un département am usine bu fa nekk. di déployer des milliards nga dem dugal fa te amoo loxo bu gudd loolu doy na waar ay jàmbur jóge feneen ñëw ñu dugal leen ko loolu c'est des choses à revoir parce que ñun mun ñu dëkk ci département bi et y a des structures yu fa nekk yoo xam ne war nañu mën accompagne accompagner les jeunes de ce département bind nañ ci lettre dugal nañ ko mais on n'a pas eu de muy loo xam ne dañ koy ñaaw mais loolu yëpp ñuy dëkk di doxee la mais di sant borom bu baax mais yàlla centrale électrique énergétique bi nekk foofu noonu au niveau de Bargny moom aussi il est à accompagner mooy la centrale à bi nekk Bargny ñoom ñu ngi pare nañ pour accompagner la journée pare nañ à accompagner les de ce di rafetlu seen taxawaay ñoom ñoom laa gis dans ce département de structure bi nga xam ils sont prêts à accompagner les jeunes leen sant leen gërëm aussi seen jéego bi ñuy def parce que nit boo nekkee si dox si diwaan di fa liggéey di fa produire ay milliards war nga mën a jël benn somme delloo ko ci askan bu fa nekk c'est un strict minimum mais ni dëkk bi taxawee actuellement c'est les choses qu'on doit revoir la recommandation pour avoir des sponsors c'est des trucs à revoir mooy li ñuy ñaawlu encore waaw. ci wàllu ci wàllu parrain yi am nga ña nga xamante ne bii ñoom nga ñoom nga ñoom nga jëmmale bis bi. waaw parrain bu mag bi drapeau bu mag bi kooku la ñuy wax euh, l'infatigable borom baax ku yàlla baaxal di di wax Mamadou Lamine Thiam borom Tiwaawan kooku moom la ñu parrainé bés bi mu nekk nit koo xamante ne nag ku discret la ku yàlla may. mais buggu woon sax ma fësal drapeau mais suñu relation moo tax mun te ñàkk. foog waaw foog mu nangul ma ko. Mm-hmm. te incha allah nañ ko dem seeti ji mm-hmm. yóbbul ko drapeau bi mm-hmm. waxtaan ak askan dégg naa moom lañ tuddee borom borom job lu bari wax lu tuuti. wax lu tuuti mu ngi noonu. l'infatigable borom baax. moom mel ni mi ngi waajal bis bi moom ak ay nitam. waaw mu ngi waajal bis bu baax moom ak ay nitam. te drapeau ku si nekk bëgg na ko xëcc ko ci moom pour jël ko. mais dafa leen ne drapeau bi ki ma ko jëmmale bàyyi leen ma taxaw si kanam ngeen nekk ci ginnaaw ko loolu borom baax kay am di ko sant bu baax si li mu nangu drapeau bi di ko sant di ko gërëm jërëjëf Lamine Thiam bu sëñ Mansour. ayca <laughs> mu mel ni tey boo amoon message booy lancé à travers population bi nekk foofu ca Bargny naka nga bëgg ñu ñëwee ci journée boobu nga xamante ne bii moom nga organisé incha allah dimanche le 20 euh, lan lay doon lan lan lan ngay wax waa Bargny fi waaw li may wax waa Bargny lenn la seen doom moo woote te nit amoo lu dul sa njaboot te seen doom bu wootee yaakaar naa ni ku si nekk war nga ko def sa yëfu bopp ñu lu ñuy wër ci kaw suuf Bargny ñu ko gënal parce que ku ñu xam wala ku ñu jox cër Bargny tax Bargny ñu yar Bargny ñu defar ku nit moo am lu gën fi nga soxe ko guddi guddi Bargny guddi guddi Bargny di sant waa Bargny yëpp di leen wax ne maa ngi leen di sant di leen gërëm ñaan yi yegg na mais nañu gën a ñaan si bés bi pour réussite bi am di wax sama mbokku mool yi tàkkusaan bi seen tàkkusaan la parce que drapeau benn bi maa ngi ko jox Diop la grand artiste de Bargny di doomu Bargny di mool ci Bargny xeebul kenn si Bargny woote ci Bargny mu ñëw taxawal la sa bés moom moo moom drapo Eumeu Sène junior ak Gouye Gui mooy combat spécial mooy combat spécial te kooku bésam bésu Bargny la bésam ñëpp ci war a sotle di leen woo ci bés bi di leen ñaan ni ñu gën a dolli ñaan parce que tëgg événement yombul mais mobilisation da ciy baax te maa ngi leen ñaan ni ñu gën a defaraat taxawaay yi gën a génn en masse pour la réussite de cet événement loolu laay am pour wax ko waa Bargny. kàddu gu mujj waaw di sant di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla <clears throat> mel ni ñu fekkee tan te <clears throat> fekkee bi ànd ak tal di ñaanal Sénégal bi ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg si réew bi di gërëm ñi nga xam ne nag ñoo may jàppale ci bés bi ñu ko mel ni waa centrale à charbon maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal yàlla aussi ñi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw di jàppatu bëgguñu ma tudd seen tur ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax aussi mention spéciale awaa waa Sicap Karak parce que Sicap Karak fa laa màggee ñoom aussi ñu ngi def seen jéego ci bés bi pour la réussite de cet événement di woote waat pour le 20 mars seen doom moo woote Moussa Gueye avec l' équipe de MG production dina ñëw taxaw ci bés bi pour la réussite de cet événement di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal aussi toute l' équipe de Leewtoo TV yàlla na jàmm yàgg amiin jërëjëf merci beaucoup MG ñu naan ko Moussa Gueye moom moo jiite structure boobu ñuy wax euh, MG production war a tëgg fële ca Bargny incha allah làmb ju mag làmb ju neex grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xamante ne bi mooy xayta bu jëf soo a nekk ak ki nga xamante ne bii mooy sapeur bu écrit barñi sapeur nag euh, ñëpp xam nañ ne moom mooy rakku rakku Quench bi di xele bu mët a bàyyi xel xayta tamit di ndaanaan ba nga xamante ne bii ku ñëpp mu ko war a bàyyi xel la euh, incha allah rendez-vous le 20 foofu ca barñi incha allah ak m ca Tëngéej stade Ngalandou bu Tëngéej incha allah la lamb ji amee incha allah ak MG production nar cee ànd ak Leewtoo TV jaa ngeen jëf